chili, chili, chili, ye bata, ye bata, ye bata, ye bata. Namaste, namaste, namaste, jili, jili, jili, jili, jili, ye, jili, jili, jili, jili, jili, ye, jili, namaste, namaste, namaste, jili. mais bis euh, ginnaaw namaste ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi nga nuyoo mbokk internet yi tey. ñu ñëw fii si xaw nañu waxtaan bi Eh, tay lan moo waral tey nga génn fu fu fu rëy fii ci Sénégal yi. non man indo laa. Mhm. nit ñi xamul man rek mais man indo laa. dëgg la yaa may gis. Mhm. Mhm. sama anniversaire la. may def sama anniversaire def anif time la nga xamante ne kenn mosu koo def ci réew mi ma rëkku ko ci réew mi lan la ci waay man. nee naa leen tey anif time bi day wàcc. waaw anif time wala anif time. anif time laay def ndax suba la sama anniversaire moo tax may def anif time. ah ok anif time ah. damay wàcc Sénégal. Mhm. ëlbati àdduna lu ci waay man may def la nga xamante ne kenn musu koo def li ma naan. ah mu mën a master. ay eh, waay jili jili jili jili hey jili jili jili jili hey baadayee baadayee baadayee wee. mais bis ñu bari tey surprise bi dañoo yaakaaroon tey. da ngay mariage tey nga ñëw fël fu rëy fii fël fu xeere fii ah mu doon loo xamante ni wax dëgg fa yàlla instant bi ñu bëri jàpp nañ ci yow tey mariage la woon kon gars yi li wax yëpp du mariage surprise la boo xamante ne surprise la ba nga xamante ne man maa ko def Hanif Time laa def de la nga xamante ne kenn mësu koo def ci réew mi rawatina ak Sénégal ma rëkk ko xanaa maa am fit. Mhm. nee talal ba Caaka Njaay li ma nar. lii mhm. tambal la yi ma nar. Ah. ku ko tàdd tàdd lu baaru sow di. Ah? waaw lan ngay waaj lan. nee li ma nar. sama Hanif Time bi dama koy toj rëkk Sénégal lu ci waay mën. maa la ko wax nee naa damaa nar tambal la wax day yàq. li ma naan. waaw bu ne may tukk mais ma nga may daan macha allah tubaarikàlla njaay jàkka njaay baa ngi nii. tey béy woon wala maar. tey nga benn n'est-ce pas jàpp lii nga benn way inde. répété mhm. te mhm. sànq moom laa doon wax jili jili jili. te ma demee dinaa ko ko fecc. dama koy fecc. ah. waaw waaw. ayca way bu doon moo ci ban

namaste. namaste. namaste. mais xanaa bii man indo laa. Hmm? ma gisee nii sax nga xam ni indo laa. dëgg la macha allah tubaarikàllaa indo bu noir am na de. dëgg la kay moom moo indo am na te man indo mais ñu bari nañ lii si Mame Ndiaye Savon nga ko sàccee parce que moom moo ko defoon fële na leen. en temps bi am ko deux esprits. déedéet sabar bi bokkuñu ay solo.

génne son wu neex ba xamante ne Vundang la tudd ndax li ma wax dëgg la dem leen liggéey bàyyi wax mhm. wax rek mhm. bi tamit lu wax dëgg la fara ceecee judd ci neex màgg ci neex ni fara cal-cal luy problème bi mhm. mais tey jii euh, su son bi tuuti rek pour nga ñëwaat si ndax gis si gars gis nañ ko ñu ngi koy laajee gis nañ nga tamit nga koy partagé tey ci say moo rek euh, lan nga ñu ci mën a wax cest à lan nga ñu ci mën a waxaatoon kon fi ma naan am naa fa nga xamante ne doon naan naan doon naa wax naan sànq la fi jógee ñuy waxtaan ma wax ko li may dund ma wàcc dugg ci koñ bi ñuy wokkantee di ma dugg li ba jàmm la ba yàggu leen daal kenn jarul wóolu naka te yoo ñoom ñëpp a yam hmm. na parce am na ñoo xamante ne dañoo mën nettali da nga leen wax ñu génn ci mbedd mi hmm. fenal la hmm. bi bos tamit benn paa lu mu wax dëgg la. muy lan nee na juddu ci neex màgg ci neex ne fara cal cal. Mhm. nee na eh, ku lay gàcceel mhm. jéem ko sori même suy mhm. tàcc bu ko feccal. ku lay gàcceel da koy jéem a sori. dëgg suy tàcc bu ko feccal te bu nag bu mu wax foofu tamit ambiance la. maa moom ñu ànd ko. mais li ma naan. loolu nag mais jugal tey jugal jugal mais xalil xoolal ma saa yi bi tey inde bi mu ndeelu ba. xam nga fili nga koy def. waaw maa ngi fili moom mu xamoon ni Sénégal Ndiaye maa ci ëpp fili. ah fili pàcc. wallaay waaw. waaw. Sidi Diop waxuma. mais fili pàcc yëpp la te ku ne xam na ni Sidi Diop lay tëgg Grand Théâtre. moo kooku sama papa la. mais est-ce que xaar duñ la xaar nii boo paree bi rek dem defal surprise ki nga xamante ni moom mooy sa papa Sidi Diop. noonu laay def damay defal surprise Sidi Diop defal surprise Waly. waaw mu ne ensemble. parce que waa léegi dëgg Sidi dëgg. waaw kay. taw taw ñu àggal li nga xamante ne moom mooy waxtaan mi macha allah gis ngeen ki nga xamante ne euh, moom la sañ ci bibis ah, tey gis ngeen ko mu doon li nga xamante ne moom mooy euh, anniv time comme ni mu koy daal di waxee. la anniversaire suba mais tey moom yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk koñam ak ñi fa ñëw ñëpp bibis lii la sañ tey ci ind la génn mais lan moo tax inspiration bi. nga oh, tëj jaaro cat la. cat la mënul war a ñàkk cat la oh pët yi moo bëri. lay ndeysaan. billaay cat na. oh. mais gis nañ réaction yow bi bi bos yow ya, bi bos gis nañ temps si internet nu mu demee. loolu bàyyi mu sédd moom mu après dinañ ko leeral. en tout cas daal ku fi réglé wu ñu nangu sa jëkkër foofu laa mën a yem. loolu sa ménateur moo sa jëkkër sa sa kii moo ko moom sa jabar man dal en tout cas lima wax deug la. djeg bu fi réglé wul ñu nangu sa jëkkër. ah paré nak de. ah. la ñu ma ngemb dañu paré ku ci melni mel ne ñoom wa ku ci kucc. dañu paré ñom yasin la ñii dañu paré mais est-ce que bu tey li ma nar a rëkk. mais est-ce que bu dé dégg lool tay du wax jëkkëram mu bañ na ménage bi bos. ah di ministère <laughs> Ndarous nii dafa sëgg. daa kersa gisee daa pare dinañ ko leer. ah dinañ ko leeral. waaw Youssou daa mel ni du la de. mais tey lan moo tax nga tëb tëb xalaat ni tey dama war a sanc li nga xamante ne moom mooy fëlli sama première solo ci indo te des na yeneen solo yoo xamante ni. da ko war waaw waaw. nee naa la indo laa def daal di koy simple mhm. loo xam li ma sut ci ay yére. waaw sut naa neuf yére. te ah? koo ma de. te bii mooy première solo bi. wa xoolal yu ma suti. waaw neuf la li bokku ci. li dama du ma ko boole ci sotti dama koy def nii. Mhm. may ko ñun ñu koy su ma paree laal sama robe bu simple. Mhm. laal sama béykat yi tàmbali la lu xeere. béykat. waaw waaw. en tant may def béykat. mbaa man de. waaw ragaluma waa Jamra. ah. waaw. réew mi réew mi Diomaye la léegi affaire daa changé de. jub jubal ah. Ah. bibis ak bibis. bi bés mi ngi leen di jox dig daje incha allah ngeen dem ca lëmbal ba foofee nga xamante ni moom mooy. moom moom ñu ngi naa ma ñu tëj ko lan ngay lan lan lan nuyoo waatee léegi xanaa nag ku mën a nuyoo mën a fay nuyoo lan ngay fayee nuyoo ci Endo. Uye, uye, uye, uye, uye, padrone, uai, é padrone.